وهو أحمد قديم من سماد محمد يا عبد الله وهو أحمد بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماد محمد الحمد لله الذي بجلاله تم صالحات الحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساد لساني نور جناني سافي أماني وسيد براهي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل لقطه من لساني يقول قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi ak wëllëre yi ak سي waay mën ñoo ngi dellu siwaat ak yéen suñu émission bi nga xam ne moom lañ tuddee jàmm doy fii ci Prestige Thiès TV ànd kook seen xarit seen soppe Cheikh Ousseynou Sy naar Borom Touba di wax ne yàlla mi nga xam ne moo yor jàmm tey jàmmal te ku mu jàmmal yàlla na nga am jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci dëkk bi def ko ci kër yi ci barke Seydina Muhammad sallallahu sa wasallam di wax ne nag ñii di sant bu baax waa technique bi nga xam ne ñoom ñoo nekk dégg maam ah, ci wàll bi muy alaaji seen dégg nga ak dani ndaw ànd ko dégg nga silla dégg nga ànd ko nañ njoon ak ki nga xam ne moom mooy dégg nga ay sa dégg ak Binta Ba Binta Binta Sall dégg nga ak ki nga xam ne kii mooy am ba mboolem ñi muy àndal rek stagiaire yëpp dégg nga am noo ngi leen di siyaare di ñaan yàlla na leen yàlla defal jàmm li ngeen fii wut tamit dégg nga yàlla na leen ko yàlla defal su ko defee dañuy siyaare bu baax ki nga xam ne mooy xalifatul am di tarixati muridiya dégg nga muy kan muy sëñ Muntaxa ba Basiir yàlla na fi yàgg te wér di siyaare bu baax a baax dégg nga ma sëñ am num sëñ Moodu Mbène Fall sëñ Moodu Aminta Fall maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babil Muridina yàlla na fi yàlla yàggal te wér ko te kàttanal ko noonu la ñuy siyaare dégg nga waa kër ma Alaaji Njëgéen gépp dégg nga maam sëñ euh, Alaaji Muniru Njëgéen sëñ As Baran Jegen noonu siyaare ko ñoom ñëpp di siyaare waa kër sëñ Saliou ture suñ Bamba euh, Touré dégg nga ak ki nga xam mooy Saliou Mbène waaye ñuy siyaare Xaadim Touré ak waa jàkkay murit gépp dégg nga bàyyiwuñu kenn noonu lañ siyaare waa kër sëñ Mor Ndiaye Dabaye dégg nga xalifa bi ak Cheikh Ndiaye Dabaye Cheikh Ndiaye ak dégg nga ki nga xam ne mooy Abdou Ndiaye nekk ci kër si ñoom ñëpp ñoo leen di siyaare bu baax a baax waaye di siyaare sëñ Mbaye si man Mansour ci Tiwaawoon dégg ak mbooleem mbokki taalibe yépp dégg maam di ñaan yàlla na yàlla yokk wér gi ak man gi kàttan gi noonu lañ siyaaree euh, waa kër Cheikh Abdou Aziz Aydara naama dégg maam ak sëbbu ak ki nga xam ne mooy rakkam di taalibe ya dégg nga ak mboolem waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu yépp noonu leen di siyaare bu baax a baax noonu leen siyaare waa ba xalifa bi dégg nga ak ki nga xam ne kii mooy Ahmadou Seyxu dégg nga ak ki nga xam ne mooy sëñ Jibril dégg nga ak waa kër sëñ Baye Modou Fall Baye waa kër moo Taala xaar dégg ak mooy Ibra sëñ Ibra dégg nga ak sëñ Maodo ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare bu baax di siyaare bu baax a baax tamit dégg nga ki nga xam ne moom mooy waa Jaxaaw mboolem waa Jaxaaw gépp ñoo leen di siyaare te bu ñu tuddee Jaxaaw dégg nga mooy Jaxaaw Kanda Jaxaaw Caali gàdd gi lépp dégg nga maam Jaxaaw la dégg nga di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dégg nga sunu doomu jaay ñu koy wax dégg maam Bayhim Jaxate nekkoon ci dégg nga maam euh, pharmacie Lat Joor ñëpp xam ko dénga nga yàlla moo def dégg nga wàcc liggéey euh, tey jii lañ koy denc incha allah ci tisbaar dégg noonu la ñu koy jaalee dégg maam Abdoulaye Jaxate dégg ak ki nga xam ne kii moom mooy euh, Saalum ñoom ñëpp dégg nga Saalum Fall bàyyi wunu mboole mbokk yi dégg waaye di wax ne kooku mooy doom baa jaxate dégg nga di suñu suñu nijaay ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla xare ko àjjana bi Seydi Buso ki nga xam ne mooy Olatitit dégg nga di soxnaam fii la nekkoon ci prestige waaw bi mu ñëwee ma xam ne sama doomu jaay moo koy denc dama ko yóbbu woon ci Pape Doumbia directement mu jël ko muy liggéey na fi lu yàgg dégg ma tubaarkàlla ñoo ngi koy jaal di jaal soxna Fatou bi xam ne mooy ñaareel soxnaam ba nekk ca Madina Fall ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla na yàlla gudda seen fan wéral leen su ko defee rek dégg nga ci la ñu ñëwee dégg maam mboolem waa kër Thierno Alassane Diallo dégg maam ñoo leen di si siyaare bu baax dégg maam Baba Galle ak rakkam dégg nga Abdoulaye Diallo ak waa kër Baye euh, Magar Kanji ñoo leen di siyaare ñoom ñëpp waaye noonu leen siyaare waa kër Mbaye Oustaz Oustaz Mbaye Kane dégg Góora Kane dégg ma ak ay rakkam waaye noonu la ñu siyaare dégg ma mboolem Tijaan Xaadir laa yéen sal da baxi waxe bit ak ñase nag murit ak waa daaka bi bàyyiwunu kenn fu waaye mën a nekk rawatina waa kër Seyim Ndoy nga xam ne fa laa dëkk dégg nga imaam ñëpp ñoo ngi leen di siyaare di ñaan yàlla na fa yàlla dool jàmm bàyyi yoroon dooy dégg nga bàyyi daam Ndoy ak ki nga xam ne mooy ilimaan ratib bi dégg maam di Baye Gora euh, Baye Gora ñang dégg ma ñoo ngi koy siyaare baax Ibrahima Khalilay ñu ngi dégg ak mboolem waa dëkk ba yëpp ñoo leen di siyaare di ñaan yàlla na fi yàlla dooli jàmm ci réew mi yaa tey jii nag ñu àndoon ak suñu njaboot rek ñoo xam ne ñi ah suñu leen tuddee di xam ne ñoom du tey rek lañ fi mas ñëw ndax Alaaji Mbuub xasaa kenn ku ne xam na ko dégg maam ah, in na fi dégg ma ay woy yu bare bare dégg maam yoo xam ne na Badar daan ay yeneen ak yeneen waaye tey jii dégg maam ah, moom la ñu àndal ci mission bi moom Alaaji Mbuub waaye mu ànd ak Jàll Mbuub dégg tey ñu fas yéene ànd ak yéen béggal leen ci ah, bis yi nga xam ne ak bis yi nu jub si dégg maam di ñaan sunu borom yàlla na yàlla dolli jàmm ak wér ndax bis yi nu si bis yépp dégg maam bis la waaye kenn ku nekk dégg maam ah yaa ngi xaar sa bis waaye yàlla na la fekk dégg maam ci lu neex yàlla te yàlla na yéex itam ndax àddina ku matal dem wallahi barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii mu ne jamono ji ñu toll nii dégg maam euh, boo xoolee sax day mel ni dëj yi ñoo ëpp ngénte yi te kenn ku ne war ngaa delloo si sax xel dégg maam te xam ne dégg nga yàlla moom dégg dañ koo war a jaamu waaw dañoo war a bëgg Seydina Muhammad waaye dañoo war a jaamu yàlla waaw kon su ko defee incha allah ñuy ñaan suñu borom mi nga xam dara tëw ko yàlla na fi yàlla dool jàmm ñi ñi faatu yàlla leen yàlla xare ajjana bi si ay seedi wuso ñi nga xam ne de maam caabi leen féete ginnaaw yàlla leen yàlla génn te yàlla teg leen ci ak njub dégg nga ñi si nekkoon dégg nga yàlla nañu yàlla teg leen ci ak njub ñi si nekkul woon yàlla nañu yàlla teg ci ak njub ñi tëdd ci hôpital yi te tawat ak ñi xam ñooy dox te tawat ñoom ñëpp yàlla na yàlla saafara leen ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam su ko defee rek incha allahu ñuy sant bu baax a baax nag borom kër gi waaw muy Pape Doumbouya moom mi nga xam ne mooy borom kër gi Pape Doumbouya di sunu doom waaw di xam ne Pape Doumbouya nit ku baax la Pape Doumbouya nit ku gore la Pape Doumbouya la koo xam bëggul tas yaakaaru kenn te ñu bari jaar nañ fi dee mu waaye ñu koy ñaanal dégg yéene bi mu am ci askan wi yàlla na ko yàlla defal dee mu am lu koy jortam dégg nga bi mu jiitee tamit yàlla na ko ci yàlla defal dee mu am ndam ak dégg li nu jub yëpp dégg nga yàlla na ko ci yàlla defal ndam ñuy siyaar waa prestige gi yëpp bàyyiwuñu kenn nag su ko defee dañuy jox àllaaj mbuub rek mu nuyoo dégg nga xam naa ne ci donte xas de bu gàtt ba pare dégg maam nu doog a nu doog a euh, continuer émission bi bon bismillah auzu billahi mina shaytaani rajim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 المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وصل إلى اللداء كل داء من لا يرى حمدنا خير الورى فزو سقاي قلبه ما نرى حمدنا نسيره ليس يرى عود وخط في البلاء yaa lam yara rahmatunaal mudatu faaxal basara wal jinna wal malaka jaa mubasara rabbi anzu tijaratin xad tajjara bi ubbi sarfin adamal fajjara man sana annahu ra'a aw sayara نسير أحمد فقد تحيرا حدائق الفضائل حدائق الفضائل في كلمة خير وسائل مبارك الابتداء ميمون انتهاء بسم الله الذي لا ينفد ما عنده وغيره لا أعبد مصليا ما سلامي أبدا على وسيلتي إليه أحمدا أقول ذا التحدث بالنعم ولا أسأل قبول الخدم الحمد لله الحمد لله الذي قد كان لي ثم بخدمة نبي جاد لي خدمة أسرف البراء يا نسبا وخلقا ومنصبا وحسبا وصيلتي ومطلبي ومنيتي وجنتي وجنتي وبخيتي سيدي لا محمد أفضل من مدى ومن ياتي ومن في من وصلواته ما تسليم عليه بالآل ذوي التكريم وصحبه وكل ما والاه ما نال يخدم ناو هذا وسط الكريم عبده يخدم خير العالمين لحبه لأنه أولى بها من نسيا التي جاء عذب بها تبارك الله آه dégg ngeen alaaji lu ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seydil awalina wal axirina wallahi képp kuy ab jullit dégg maam yàlla bu mu la ump yàlla na nga si rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku fa dem ci moom rek di nga xam ne kooku mooy kenn waaw waaye kii yëkkati maam nag dégg nga jëme ko ci moom muy xaadimu rasul di bàyyi alaaji fàllu mbàkke dégg nga li mu tagg ci yonent bi yëpp li muy bari bari bari dafa wax ne dégg man sax am naa ay bori tagg dégg nga yoo xam ne dama ko war a tagg bi sallallahu alayhi wa sallam ma loolu te li mu ko tagg kon euh, jërëjëf kon su ko defee rek xanaa dañ lay jox rek nga nuyoo dégg maam mbokk yi nga xam ne dégg nga maam tey jii ah, ñoo ngi toog di seetaan ñi nga xam ne dafa am ay soppe yoo xam ne yi dénga ñoom émission bi saa bu jotee dañuy bàyyi lépp dégg émission bi la ñuy déglu am na ñu nekk Amérique ñu nekk France ñu nekk Italie ñu nekk Japon ñu nekk Chine te kenn ku ci nekk dégg nga mën naa la wax seeni tur dégg nga te émission bi moo leen yor mooy émission jàmm du doy soo gisee ñu tuddee ko jàmm doy tamit jàmm du doy te jàmm ci la lépp ne ndax ñetti jàmm la waaw jàmmi àddina ak jàmmi àllaaxira dégg maam nit ki dégg maam soo ko amee ak jàmmi yaram jàmmi yaram mooy wér jàmmi àddina mooy soxla bu amu faju jàmmi àllaaxira moy deg mam bo faato nga dem aljana aljana nak tudul aljana ay jeexna la tudd ndax ay amatu fa koku moy deg nga kon suko defé rek euh dama bëgg nga daal di nuyo rek suko defé deg mam mbokk yi waaw kon suko defé ni doga a ci émission bi bismillah tafaddal mashkur Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg la dëgg la. Mhm. Mhm. mboolem mhm. waaw kay tubaarka waaw waaw waaw waaw kay jërëjëf euh, tabaarakallah kon dañoo wax ne xayra kalaam maa qalla wa dalla gën ci wax mooy bi gàtt tegtalu gàtt na tegtalu na tabaarkàlla bàyyi woo kenn waaye kon su ko defee rek dañu profité dégg nga nuyu mooy bu naa fi ma daay saafi mooy daayira bi nga xam ne dégg maam ñu jiital ci sëñ Fallou njaay dégg nga ñaan ko gudd fan ak wér waaye ki nga xam ne moom lañ def ca bopp ba mooy njaga teggin njaga Alaaji njaga Juuf dégg nga di ku baax ñu koy ñaanal moom tamit ak mboolem waa mooy bi gépp dégg nga di di leen sant di leen gërëm alaaji Mouhamadou Niang dégg nga alaaji Ousseynou Ndiaye dégg nga bàyyiwunu kenn si ñoom te euh, Ousseynou Ndiaye le 14 janvier mooy bisam bi nag nañ ko fàttaliku moom tamit incha allah nañ ci ñëw dégg nga su ko defee noonu laa leen di fàttalee tamit dégg nga bisu euh, sama xarit sama sëriñ sama lépp dégg nga muy sëñ Mbacke Fall mu sëñ Modou Moussa Fall mu maam Cheikh Ibra Fall Lam Babil Mouridina le 9 bii di ñëw bu delsee fii ci kër Cheikh de nga bisam bobu de nga at mu ne gis ngeen avant premier bi de nga mu ngi ci tuddu sama tour te at mu ne day bëgg de moo ma def ci waxtaan ba pare mu boole ko teral nu kon sëñ Mbàkke Fall noo koy siaré bu baaxa baaxa baax di siaré mbolé mbok talib yépp leen jox rendez-vous de nga le 9 bi di ñew inshallah fofu kon su ko defee incha allah bëgg rek euh, sëñ Jàll Mbuub xana nga nuyo rek de nga nu daal di dugg ci nak ci émission bu baax sëñ Jàll bismillah. waaw waaw ñu lay ziar bu baax di mboolem waa téléspectateur yu chaîne télé Prestige mm-hmm. TV mm-hmm. ak waa Daaru Salaam waaw ñu ngi leen ziar bu baax di leen ñaanal sànqatu daare ni mm-hmm. di la ko ñaanal ak mboolem ku nekk si télé bi leen ñaanal sànqatu daare ni jërëjëf amiin jërëjëf jërëjëf kon su ko defee rek jàll euh, moom saa boo xamee ne rek ñun daje nañu mu ànd ak mbagam ju baax ji te dañ ne ku dul toppe kenn du la topp dégg nga waaye daa topp magam jii saa su ne dégg nga mu daan ànd ak xaadim dégg ngeen ko ma maam wax dëgg yàlla njàng mi nga xam ne dégg maam da ko fiy jàng saa su dégg nga ci rajo beeg ci télé bi loolu dafa am solo ndax xasida yi moom ku ko boo jàppee boo ko jàppee te boole ko dara mu téela sa lépp dégg te tagg yont bi nag matxu nabil mun taxaa foo suñ waxun mun tagg yont bi salaa salaam boo faatu rek moo lay tee dem àjjana kuy tàgg yonent bi waaye waxun mun koom-koom la képp koo xam ne ki yaa ngi tàgg yonent bi di soli sagar mbaa nga banque mbaa nga yor soxna su ñaaw da ngay fo xool leen ci man rek li ma sol kenn fóotagu ko te noonu nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen te loolu lépp tagg yonent bi rek a waxtaane ko moo ni ko jox kon yonent bi kenn du moom dégg foo ci dem ci tarixa yi kenn ku ci nekk dégg mu am ñoo ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo demee ci Alaaji Malick Bakar rek dara maan aram loo kumba Caam Baay Cheikh Abdou Aziz da baax Malick borom sikkim bu jekk ba 40 ans xalifa Sarafot da ngay dégg dégg mu am lay sa li amaloon dégg nga alxaaka yaa amali sia mahabatak dégg ma wa tasjim salmi xoolal nee na aw ma benn jëf boo xam ne bi mën naa koo def rek dégg maam dégg nga pour mën a dajeeg yow lu dul bëgg la yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam dégg nga ak màggal la xoolal kon bëgg rasulullah ak màggal ko dégg nga kooku dara gënu ko te loolu ah, alaaji malik ko wax dégg nga soo demee ci ñeneen bàyyi ñas keneen ku mën doon dégg nga bëgg rasulullah dégg maam mooy lépp kon su ko defee rek dégg nga alaaji boobu xanaa dañ lay déglu nga ànd ak nga rek ñu lu ngeen indil bismillah wa innaka la ala wa innaka la ala أي مصطفى وعلى خلق رزيز أي مصطفى وإنك لا وإنك لا وإنك لا على خلق رزيز وإنك لا وإنك لا يا نبي الله وإنك لا لا خلق رزيز أي مصطفى وإنك لا إله إلا الله إنك لا على خلق لزيم وينك لا لا وينك لا لا وينك لا لا خلق لزيم المتفى وإنك لا لا لا لا وينك لا لا وينك لا لا خلق لزيم لا وإنك لا لا خلق العظيم lu dëgg la Cheikh Bamba jërëjëf ashabi man qalbi aw yawla wa innaka la la wa innaka la la خلق الرسول لا إله عن سبيل نبي خايتا مام سرعا متيا تيا بمحيا مدروا وينك لا لا وينك لا لا وينك لا لا خادم رسول الله أبلغ إلى قوم وسيدا بهم أجرج وحد وخل كفارا والكل جسما وينك لا la وينك لا لا وينك لا لا خلق الجنة loolu dëgg la Seex Bamba jërëjëf a ah, jërëjëf way naka laala way naka laala way naka laala xuluxil na لا اله الا الله لا اله الا الله فمن يصح فالمدهول مدهول مخاطئ ايا خادم المقال لا تنسى فمن يصح فالمدهول مدهول مخاطئ لا اله الا الله لا اله الا الله فمن يصح فالمدهول مدخل مخرجه أيا خادم المختار وفات سابا يكرم يكن فمن يزول فالمعروف خادم رسول الله أبو بكر صديق جمال أبو بكر صديق جمال أبو بكر صديق جمال أيمن يكن رسول جمال أبو بكر صديق جمال سابا رسول الله أبو بكر صديق جمال وصدق والوفاء رفيق نبي المصطفى خرا أنبو أيا خادم المختار لا تتسابوا وما يزول بالمروم مجلل برام طوبى أبو بكر صديق جمال أبو بكر صديق جمال ما جدت رسول جمال أبو بكر صديق جمال ذو صدق والوفاء رفيق نبي المصطفى خرى أنبو أيا كريم المختار فمن يزول بالمروم rasulullah asaba rasulullah inni xadimuhu muyiban lakum fillah wallahu yaglaw asaba rasulullah inni xadimuhu muyiban lakum fillah wallahu yaglaw am jambe ne ci kulay telefon Sëñ Bamba xamaraw na deppe Sëñ Bamba xolam baa gën a leer la bu nu jafal mees ci gun lay téléphone xel ma raw na deppees xolam baa gën a leer xaadim rasuulullaay ci gun lay téléphone Cheikh Bamba ci gun lay téléphone la dëgg la xel ma raw na deppees Cheikh Bamba xolam baa gën a leer la bu bu nu jëfal mees ci gun lay téléphone xel ma raw na deppees xolam baa توبة ولم ينسخ ما بأد توبة ولم يبلغ طولا جبال نعمة جكل يتربى كما رأونا ديبس ولما دنا ليه rasulullah su cëre yi ne lawil Cheikh Bamba xol ba moom ma ngay xool su nekkul di bind daa ma nga yëri moom jigul lay teele ba xel ma raw na dépp xool ba gën a leer Rasulullah te Layla du ko tee gëm ca peyi diwaan ca baas yoo yanu saakal rijaal ya lay naan ci gun lay téléphone xel ma raw na déppees wala mbaa gën a leer Ahmadu borom Tuuba borom taar bi le seemal na saaru mbargal tabaara ak ma jàngal ko saaru furxaawa ci ku lay tere ba xamaraw na teppees xolam baa gën a leer xaadim rasulullah te semal na ña daaway arab te dayman te jaaxal na ña daaway ajab ci soo daawa ci ku lay tere ba ay sëriñ saa borom Tuuba te yaram yaa fi daa way nga ne li addanaan ka buusayr wa kaabul gewel ba xaasa ci gu lay deele fa xel ma raw nga deppees borom ba dene le xaadim rasuulullaay bu tawreetu ñëwaatoon nga mel ni Muusa bu leen kiilu ñëwaatoon kabar di saa ci ku lay tere baawaa ay Sëriñ Fallilu wala mbaa gën a leer lamp bu nu jafar borom Tuuba bu tawreetu ñëwaatoon nga mel ni Muusa bu Injiilu ñëwaatoon nga far di saa ci ku lay tere baawaa xolam mbaa gën a leer rasulullah sabura gingala jambam ko jambala khanu ngayasal fafadi mahmud jigulay teleba khamarawna depe khorama genale khadim rasulullah khorama genale jambam la tubun jafal me khorama genale Ahmadu borom Tuuba xolam baa gën a leer Seex Bamba bu nu jafal mees xolam baa gën a leer Seex Abdu Xafoor Mbàkke xolam baa gën a leer Seex Bamba bu nu jafal mees xolam baa gën a leer Bay Seex Mustafa Imam xolam baa gën a leer lapp bu nu jafal mees xolam baa gën a leer kon dégg ngeen alaaji mbuub ci tagg yonent bi salaa mu ànd ko jàll mbuub dégg nga ah euh, dégg ngeen ñi daan tagg yonent bi salaa mu tudd leen ku mel ni bu Bushayru dégg nga xam nga ñooñu ñu ñu li ñu daan tagg ci yonent bi salaa salaam asaan bu Bushayru dégg maam ak ñooñu ñépp dégg nga waaye bu tuddee ba tudd yi tamit dégg maam ci xeetu naar yi dégg mu tudd ulaa dëymaan ñun ay naar lañu waaye xam nañ ne ulaa dëymaan ñooy naar yi nga xam ne dégg nga ñoom ñoo gënoon a xereñ dégg maam ci ay situ yonent bi lañ sallallahu alayhi wasallam li taxoon ñu ne woon dañuy yóbbu Sëriñ Tuubaa gànnaar xam nga dafa dem euh, dafa dem ci géej gi ba dil siwaat mënuluñ ko dara ñu ne kon kuy euh, kuy képp koo xam ne kii da ngay jaay xam-xam boo demee gànnaar xiimkatu attaay ngay doon moo taxoon ñu jëloon ko yóbbu ko fa waaye ba mu demee moo jommal naar yi ulaa déymaan yi moo leen jommal dégg nga waaw ah, kooku nag dégg nga moom moo fa jëlee dégg maam wirdu maaxuus minallaahi wa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam dégg nga ak yeneen dégg nga indil nu ko ñun ñii di dëkk waa Sénégal dégg nga nga xam ne tey waxuma la dara waaye naari bu nu amoon sunu waa ji wala beneen réew kon ñun ñëpp dañuy màng di fa dem waaye yàlla nu ko baaxee Sénégal li fi nekk dégg nga maam ci nit ku baax dégg nga ah ñun dañ ko war a xam ndax mboolem tarixa yi yi fi nekk kenn ku ci nekk dégg maam jaamu nga yàlla ba suñu boroom jox la dégg maam li nga am dégg nga tey jii ku ci xewle ñëpp dañuy màng di dem dégg nga waaw Thierno euh, euh, Thierno Aljuma Ba daana wax ne leen dégg maam ah su ngeen demee ba jëg mi jamono dégg nga kaaba gi dina féete ci penku bi ku bëgg a dem dégg ku bëgg a dem ci àddi rasulullahi salaa salaam da nga soo demee Touba danga nga jaar nga umra nga aj nga am nga yool ba waaw kon xoolal kooku ci ak baaxam dégg nga ak wàlli yu bi ko yàlla jox dégg maam ak nga xam ne seen xol yu set yu laa biir yooyu dégg maam te dégg nga ab jullit dëgg dëgg dégg maam du iñaane mbokkum jullitam dégg nga du dëgg ah, lépp lu mu am rek dée nga da ko koy nangul te yàlla tax loolu moo tax man see rafal lam babi muridin daan na bismillah jaam a ah, nangu daa jël cëru bañ man Ibra Fall jiital naa nangu doog a laaj xam lu mu doon su ma xamee lu mu doon kanam laa ko jëmee kon yàlla na yàlla doolu jàmm xam naa ne euh, tey ji incha allahu dégg nga jàll mbub euh, kii nga xam ne moom mooy allaaj mbub mi dégg nga moom it sunu bis boobu nga xam ne moom ngay def daaru salaam euh, bëggoon naa nga wax ñu ko su ko defee dégg maam suñu bis la ñun ñëpp saa bu dikkee dégg maam ñun ak waa mooy bu naa fi ma daay chefeek ñëpp ñun suñu bis la noo daje dégg nga noo koy jàng ñoo koy waxtaan waaye bis bi nag bëggoon naa nga fàttali ko rek ñu xam kañ la. waaw Baye Ousseynou. waaw bis boobu ñuy def di ci sant sëriñ bi. waaw waaye di ci ñaanal sunu wayjur ak mboolem way dawla yi. waaw yàlla dogal na nu fas yéene ci ànd mbooleem ak ëllu xasaayit yi. waaw waaye nag dañ ciy gisal daayira euh, mawaay bu naafixu. fi ma daayira saafi. Mm-hmm. di jiital sunu bàyyi njaga teggin mi nga xamante bi moom la fi Serigne Fallou Ndiaye teg dëgg la mu nekkal ko fii ci dëkk bi ñu di ko ci jiital Serigne Moustapha Seck Serigne Ousseynou Ndiaye sunu bàyyi Mor Massamba waaw ak mboolem ëllu xasaayit yi la ñoo ngi leen ci jiital moom moo waa daayira euh, bu naafion hmm. ak mboolem ëllu xasaayit yi ci dëkk bi yëpp waaye rawatina ci génn dëkk bi waaw bàyyi sunu bis bi nag di tombé le 18 janvier incha allah waaw euh, le 18 janvier lay tombé ñu di ko defee Daaru ci école primaire bi est-ce comme nanu ko daan defe nag lañ ko fas yéene àndewaat ak mboolem ñan ko daan àndal mm-hmm. waaye soppe yi xarit yi ak wóolëre yi mm-hmm. waaye ñi nga xamante bi daanañ ànd ak ñoom bis bi ñi mm-hmm. eh, ma koy waxee dara du ci soppiku incha allah ndax ñun dañoo fas yéene ku nu àndal sëñ Tuubaa la nu ànde ak yow dëgg la te ku nu gis ni sëñ bee ngi ci yow feek mi ngi ci si jëmm eh, lépp lu ñuy yëngu danañ ko ànd ak yow loolu rek boole ak soppe yi waaye moo nu boole ak mbokki taalibe yi kon daal bis bi mi ngi noonu bàyyi Ousseynou yow nag sa bis la waaw nan ko daan ànd rek lan koy ànd waaw le 18 janvier incha allahu rabbi mooy bis bi fii ci Daaru Salaam waaye ci école primaire bi incha allahu rabbi kon su ko defee rek mm, bis baa ngi noonu euh, ñun ñëpp nañ ko waajal la 18 ndax ñun ay jullit yi yëpp dégg maam ñoo bokk lépp dégg nga te benn jullit bu bu bu sóob rek bu sóoblee rek dañ ko war a gis nga kër Sëriñ Ndooy gee ma dëkk Tiijaan Murit Xaadir Salsel Dabax yi Ñaseen ñëpp dégg maam ñoo bokk dégg nga kenn ku ci xewle ak pël yéeg ñëpp dem na ku ci xewle ñëpp a ñëpp a àndoo dégg nga ba at mu nekk dégg maam dañuy def bis bu mag boo xam ne bi dégg mooy gi dégg nga ah ba ren ji passé dégg maam gàmbu gi man mii lañ ko pare man mi man mii lañ lañ lañ dis woon maa doon def waxtaan mbay bee moo doon jàng-jàng yi mais kenn ku ci dégg ku ne da nga ñëw jël sa wàll tijaan yi dañuy jàng ñaseen yi ñëpp dégg nga ñëpp daal ñoo bokk foofu itam gis naa fi dégg maam euh, solidarité bu am solo waaw ndax bari nit ñoo xam ne bu ñuy wàccee kaamil dégg nga ñoo ngi cay séentu xaalis bu ñu yóbbu waaye foofu dëj bu fa am ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw dégg maam wàcce fa kaamil ñëpp au contraire dañu jël seen alal dégg nga boole kook la ñu joxe dégg nga nu jox ko ki nga xam ne moom mooy borom dëj bi dégg nga loolu la ñuy def duñ fa laaj fifteen dégg nga te loolu bari na si koo xam ne ki dégg nga léeg-léeg dañu former équipe waaw pour jàng kaamil alxuraan soo laalee jukki ñu ne kii Ablaye ko moom wala Moodu waaw wala dégg nga bu nu pare bu ñu leen joxee xaalis bi dégg nga duñ ko wane am na si ñoo xam ne dégg nga dañ naan waaw lii pour laay te laay ñëwul jàng si te ñi toog ñëpp dégg nga am benn lañ ci isa qura alquran fastamilu wansatu laallakum tarhamun suñu jàng alquran dégg nga na ngeen noppi te déglu ko te xereñlu ndax yàlla yërëm leen dégg ma kon ñu fa toog mag ñu fa toog te amee kër dégg te seen doole bariwul sax bu fekkee ne addee ñu ngi koy séddale kenn ku ne war nañ see jox dégg nga loolu mooy dëgg dégg nga te ñun nañ ko xamee ñun naar yi dégg nga bu ñuy jàng dañ koy jàng rek te yàlla tax duñ la laaj fifteen waaye koo xam ne kii nag dala naan dégg ma fukki junni nga ma jox wala nangam kon nekk bu ci dem benn araf am déet ah li tax ñu jàng xatnu bi mooy léeg dégg ma day ah, li siy dem ndax mu jàngal ko wala yooyu du dëgg ah kon nag yàlla na yàlla defal jàmm eh, su ko defee rek ñoo ngi santaat bu baax a baax dégg nga waaye bëggoon nañu nag dégg nga maam nga dikkal ci yonent bi nag ndax yow eh, xare na badar daan moom dégg nga maam kooku rasulullah sa alayhi wasallam bëgg nañ ko bu baax a baax ñépp a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yow moom di nga wax ci yonent bi dafa neex lool Deng, nga waaw ndax ba ci borom kër gi sax loolu da ko ci neex dégg ma dañ koy déglu kon su ko defee rek nga bégal nu ci dégg ma doog a jàll xam naa allah xare badar yaa fa daan jël ya maama sayyidina rasulullah mu yonent bi Mustafa sayyidina rasulullah mu yonent bi Seydina Rasulullah mu yonent bi ku sopp yonent defal ni sa loxo Seydina Rasulullah mu yonent ay Mustafa ñoo sopp njool Makka te gëm nanu Yàlla may bu noo xàll diine ji màbb ke yaa nabi xare badar yaa fa daan jël nga dam magal leen Seydina Muhammad Seydina Rasulullah ma yonent ay Mustafa ku leen xamul joxuma nopp te teewlu ma tay ma lim jay sunu wa day sunu wa xay sun lim baa ngi nabi xare badar yaa fa daan jël nga dam jël nga dam lee amaama Seydina Rasulullah ma yonent المصطفى أن المصاب يا حالي يا عمر عثمان محمد مباي بابكر موجك قم سنيا ننتبه مباي بابكر موجك قم سنيا ننتبه مباي بابكر موجك قم سنيا ننتبه مباي بابكر موجك قم سنيا ننتبه مباي بابكر موجك قم سنيا ننتبه may Babacar moo njëkk a gëm sunu yeneen ay Mustafa yanu gën gën sunu maam ba ngay dem Madina ñu ko naa marhaban yaa xayra daana bi yow yaa yanu gën gën sunu maam afdalu xalxulaay ñu ko naa marhaban yaa xayra daana bi ay Mustafa yanu gën gën sunu maam ba ngay dem Madina مرحبا يا خير دان بي يا نقل نقل سنيما أفضل خلق الله يقول مرحبا يا خير دان بي مصطفى كننا ما قيد نختكت من سيدنا محمد كننا ما قيد نختكت من سيدنا محمد مصطفى ابن عبد الله ميون انتبه يو يا نقل نقل سنيما خير العالمين يا كنا مرحبا يا خير الدار اي مصطفى قدول بني سيل دون اي لمن يا رب عبد العالمين وول بني كون ريول ني فتاح تي يونن يو يا نغل جنسني ما باي سيد بابا خبا يا كنا مرحبا يا خير الدار اي مصطفى du xasab la ay Lamine moom musutu la ca kaw ku topp ci moom mu raw la yaa nu gën gën sunuy maam afdalu yaa xara daal ay Mustafa xusay nuyu maam ma ne dem ma dee njëngo naa marhaban yaa xëra daana ay Mustafa mu duri ka tunu Ilyaas ay la mi noo Muhammadu Lamin saarun maa du góor gu sempal gaay maami nabi yow yaa nu gër gër sunu maam magaleen Seyduna Muhammad njëngo naa marhaban yaa xëra daana ay Mustafa mu duri ka tunu Ilyaas ay la mi noo ñoo yor leer ga daaru maa du góor gu sempal gaay maami nabi yow yaa nu gën gën sunuy maam xayrul alamin ña ko naa marxaban yaa ay Mustafa fi hurun wa malik ay lamino dar ndax nga mën a way kin nana ta xusay mata maam yaa ngi nabi yow yaa nu gën gën sunuy maam afdalu xalqulaay ñango naa marxaban yaa xayra daana ay Mustafa liman xadd nana duma jàll man naa xadd mu sama way liman xadd nana ana la maam la way danaa la way la kay la wayam wa day nii la way Mustafa kañ waajul wuyul wa day afdalu xalqu laay yonen danaa la way danaa la way man danaa la kañ waajul wuyul wayam wa day ni yonen danaa la way كنال كي واجل ويلو خير العالمين يونن تمراو دوبا تمراو دوبا ندموني بيغ ندموني بيغ داو مارو وداو صفا لا لينا نبي دنا روي تنال كي واجل ويل ودين timraw duba ñun de moonuy bëgg laa lay ñaan be danaa la way danaa <laughs> waajul wuyul wa day yaay sama géer yaay sama géer yaay sama géer la ilaha danaa la way danaa تيو واجل ويل وتيني يلا لوينا وإنك لا لا لا خلق عظيم المصطفى يا يدلت بيننا لوينا لك يا واجل ويل وديني نبي huwa sayyidul awwalin wal axirin waaw nga xam ne abdalaaye baayam abdul mutalib achim abdul manaaf xusey kilaab murata kaab li way xaali fii li maali nadar kinaanata xusey mataak mudirkata ilias mudar nijar maat adnaan nee na nga ne du ma dama koy xatmu foofu la wax de gis nga tur yi dégg nga maam soo ko jëlee bind ko ci àlliwa nga raxas ko dégg nga maam boo ko sëlmoo sëy ba doo gumba ba keroog ngay faatu waaye <laughs> yonent bi kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy sayyidul awwalin wal axirin mhm. cey rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu mu ëmp kenn dégg moom ci jullit dégg moom dem siyaar di rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kookoy illa allah xol yi sedd na alaaji mbuub yàlla na yàlla gën a guddal sa fan wéral la kat la dégg moom kooku mooy alaaji mbuub nag su ko defee alaaji mbuub xasaay bu ko defee dégg moom nga joxe waat numéro bi rek ndax dina am ñoo xam ni dégg moom dañ koy soxla dégg nga ndax bu ko bëgg rek ñu taggal la yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam bi noo ko woyee de maam day neex. wallaay dikkal alaaji numéro bi la si la. Euh, numéro bi 78 la. waaw 425 20 63. waaw 78 425 20 63. waaw kay. Euh, ci la ñu fas yéene ànd ak mboolem na ñi nga xamante bi ñu ngi ñuy euh, topp te ànd ak ñun. waaw. Eh, mboolem ci xarale yi nga xam ne itam. ñu ci and ak ñom waaw ñu ni suivre lu ñu duggal ñu commentaire ko and ko ak ñun itam. waaw ñoo ngi leen di ñaanal bu baax. taw fexe tey sur barke Seex Xaadim Baaw seenu waaw kon kay su ko defé rek dégg maam ah, mbir maangi nonu euh su ngeen duggee dégg maam ci eh, YouTube beek Facebook beek yo Instagram ak yépp rek inshallah allahu nga di ngeen gis eh, ki nga xamni moy allah Alaaji Mbuub Xasaayit de ngeen di ko amee de nga di dugg ci bir ay page am di xam la xew waye li am solo ba am solo rek moy bëgg bu bëgg jeex bëgg yonent bi ci raw sallallahu alaihi wasallam rasulullah kenn mom wa bëgg rasulullah gi nga xol bu ko bëgg sax deg mom day set day leer deg nga do iñan do soxor do bodde do deg mom ah do nay itam ku bëgg yonent bi ah yoy du nekk ci yow de waaw ndax loolu dañ ko wax ndax deg nga ko deg mom ni ñu waxe ci ci jikko mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammadun misalo lem yaati waaw te xam naa ne xasida googu xam nga ne mm, xasida gu am solo la dégg nga waaw waaye dafay wax ne ku mel ni moom moom dootu amati mukk nag muhammadu nasiru lam dafay wax ne Muhammad sallallahu alayhi wa mel ni moom dootu amati mukk mukk mukk. fi maamada lii wéy ak lii ñëw dootu amati mukk mel ni Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. rabbana lam yuridi. billaay nee na sax na dàkk dàkk dootu amati ku mel ni Moustapha. mislan lahu fa mislahu la yuridi. nee na kemu kii mbaa mel ni kii dootu amati. loo siyaadatu lul baraha. de nga dang koy door par ben de nga ma sam ko nar ko toj ko sedel ko ne ma jox la sa wal boy dem yóbbaale nga ne loo ziyaadatu loo ziyaadatu mom moy ab sang lool baraan neena ak mbax ci rasulullah lañ koy roye yow ma alastu neena bu ëllëgee yowmal mal biñuy laaj wala da safa neena na bu keroogee muhammadu rasulullah moy rab jamni huwa nabi mom lañu solo wa rasul moy yonentu yalla bi wal xalil moy xaritu yalla wa wal habib ki moy soppe yalla wa imam ki moy ilimani ilimani ci ki lañu ñu lo ba tàbbi ajjal whole. Yeah. baraawol baddihu min xayri jamaa nee na ku yëkkat sa ñaari loxo rek yàlla na nga am téeméer at yu tàmbalee tey nga ne baraawol baddihu min xayri jamaal kii la yàlla dañal moo gën a taaru nga ne wasannoo wasannoo alxudus kii la yàlla ñoo moo gën a taaru an xayri kamaal moo gën a mat moom rasulullah nekk ki nga xam ne kii muntaxaa nga xam ne dañ koo tànn xoolal ku soppee sëñ muntaxaa Mbàkke dégg maa defal nii sa loxo dégg nga màggal nga ne ma xam Muhammad loo ci wax kii mooy gën gi mbindeef ci yàlla mi bind jaam yi ne laa ilaha illallah ma jox maam Cheikh Rafal bi ana soppey maam damaa wax ne ku bëgg mucc yi may bëgg a wax mooy diabète tension ulcère estomac hémorroïde tànk ruux ndiglu metti bëtu lëndëm choléra sida cancer sibiru télé ak soof ñàkk ak kiñaan ak cardiaque ebolaay ba ci coronavirus bii ku ci bëgg mucc yaak sa njaboot njaboot waxal laa ilaha illallah ca eh, maam Cheikh. Ibra Fall lam babil muridina wal muridaati Abdou Fall Saliou Fall maam Cheikh Ndiaye nga ne ma laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. bàyyi sëñ bàyyi sëñ Modou Moussa Fall ak Basirou nga ne ma laa ilaha illallah. koo koy maam sëñ Modou Mbenn Fall sëñ Modou Aminta Fall ak Cheikh Fall Baye góor nga ne ma laa ilaha illallah koo koy maam sëñ Moussa Fall mu sëñ Mbacke Fall mu sëñ Amdi Khadi Fall mu sëñ Maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babil Mouridina nga ne ma laa ilaha illallah koo koy maam Cheikh Ngunda Fall mu Cheikh Salif Fall maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babil Mouridina wal Mouridati nga ne ma laa ilaha illallah koo koy maam Cheikh Ndigal Fall mu Cheikh Fall Baye góor maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babil Mouridina wal Mouridati eh koo koy maam sëñ mu Cheikh Mbacke Fall dégg maam mu sëñ Modou Moussa Fall maam Cheikh Ibra Fall lamp Baabul Muridiin borom la neuf ey eh, waay maam Cheikh Ibra Fall nee na bu ëllëgee ku sant Fall ku ne dinaa la tàbbal àjjana ba ku sant faam naa ko tàbbal àjjana gis saa Fall bi nga ne laa ilaaha illallaah kon jërëjëf su ko defee rek alaaj buub dañ doon barkeelu rek ndax albarakatu lil mutabarikiina laay lu barkat ilaa tabarakin te def naa ne boo tuddee sëñ Touba tudd maam Seera Fall dégg nga maam tubaarkàlla waa xam naa ne nag incha allah émission bi daanaka dégg nga maam ñoo ngi ndaw gi waaye am na koo xam ne kii dégg nga mënta ñàkk dégg nga xam naa ne su ko defee moom la ñu tëjee dégg nga muy soxna maam Jaadi Sulaay Buso jigéen ju baax jooju nga xam ne dégg nga lépp moom moo ko liggéey mooy seetum jole ba aw ba farimat sàll aw dikka camara ndumbeeg soogee maam a jaag maam astawala mu jur soxna jaar mi ci poroxaan kooku nga xam ne dégg maam mooy nday mbër kon kooku su ko defee rek xam naa ne nga laal ñu tuuti ci maam jaara su ko defee dégg maam ñu tëjee ko émission bi allah mel ni sëñ bi jàpp na poroxaan sax waaw kon waaw kay waaw kon poroxaan le 6 février la kon su ko defee ñëpp ñu dégg ko insha Allah kon bismillah kon dama jarama mam jara, ku am jarama ku am jarama ya ko waral sa mereka rama jarama mam jara, mam jaara buso mami alaji fallo ba. mami sen jaara jaara maam jaara ku am jaara maam yaa ko waral sa doom rek karama maam jaara buso mami alaaji baara baara mami Seex Abdu Xafoor jaara maam jaara tëkkale laa jigéen bu sa baali maam bu sa baali xaw ni yàlla ak yàlla jaara maam jaara maami alaaji Fallilu jaara aji para dana waral sa dowa karama mam jaara di tuddu seen doom ya di tuddu Bamba di tuddu Bamba alam na ngir moom rek attan liyan ba ma jaara jaara ma mam ku am jaarama mami Sëriñ Saaliw yaa ko waral sotowa maray karama mam jaara la am faage tindaar te am sindo te am sindo jaara yun ko ko waat gede tindoo la am waage tinna te am am tindoo de tindoo waatu baa ana soppey mam jaara yónn nga ko de soxna jaara yónn nga ko waatu baa gede sindoo mam jaara masala siise masala dox di bonde masala wex wex look dox di godde soxna jaara masula siise maam jaara masala dox di bonde mami alaaji fallu masala wex wex look ana soppe maam jaara daawul la jëw doo janni daawul la jeye maam jaara musa doo jeyoo doo jaayoo ka jayu ci jay soxna jaara virul ja aljanna yaanu leena jaara no lay murito ak sa doom leen soxna jaara mali fi sere xam yay woote kaayanaan kan kan kon nga xam ni seex kan kan du maasum ke wax leen man fi seex ngay woote kaayanaan kon nga xam ni seex bamba du màggaleen borom poroxaan soxna jaara yaa ban géej mbambulaan mu naa wal wal soxna jaara yaa ban géej mbambulaan mu naa wal wal géej nga too fi kenn nu kumar mbaa ku gantu bay wax leen soxna jaara yaa ban géej mbambulaan mu naa wal wal géej nga too fi kenn nu kumar mbaa ku gantu bay waaw kay dégg ngeen olof nil ko ànd ak say morom di jëri ba dégg ngeen olof ni ko ànd ak say morom di jëli bay boo góoree dangay jëli bay boo góorewul même mali bay dégg ngeen wala ko ni ko anak say morom mais boo góoree dangay jëli bay boo góorewul même ni lu daay takk takk bàyyi kuréel dégg bamba moo di cee tax daay di takk bàyyi kuréel wax leen wala ko ni lu daay takk takk bàyyi kuréel bamba moo di tax daa di sàkk bàyyi kuran jolle burdu kuy gën a dolle jolle burdu kuy gën a dolle mam bu sobaalen sëriñ ko wax leen am nga ndam mam bu sobaale man sëriñ baara am nga ndam mam bu sobaali jël nga ko bokkal am nga ndam li mam bu sobaale jël nga ko bokkal jël nga ndam li mam bu sobaali jël nga ko bokkal jël nga ndam li bu sobaale jël nga ndam li bu sobaale jël nga ko bokkale tabarakallahu xam nga neex doy kooku nag mooy jigéen ñu ñëpp dégg maam war nañoo di roy jigéen ñu baax ñi ndax dégg ma xam nga jigéen mooy euh, mooy kër mooy borom kër ndax jigéen mooy tuddul jigéen jëggën la tudd ndax jikko ja ma war a rafet dégg nga xam nga ne dégg nga jigéen mooy borom kër góor day neexal kër rek bu fekkee lu mu indi yàqoo kon dara du fa baax jigéen bu respecté jëkkëram ay doomu respecté ko jigéen mooy yar njaboot bi moo yor kër moo tax bépp góor boo gis deng muy teral jigen yalla da koy teral boo bo gis muy teddil jigen xol ko do am teranga di maa ko wax jigen dañ ko war di teral dañ koy war sagal sigil ko yërëm ko sutural ko deng ci ay mbokam ak ay doomi bayam deng ah man de ni may def moy lolu na la sagal sigil la deng ma sutural la deng say doom day say doomi bay deng lolu lañu xam su ko defé deng momit mu xam yo yaay kan mu jox la cër ba mat seuk deng ah dis jam ngeen ànd jamu yalla su ko defé rek dégg nga xam naa ne ñoo ngi ci cëppaandaw ji daanaka dégg nga incha allahu di sant bu baax a baax euh, waa États-Unis d'Amérique Ibrahima Dramé nga xam ne ñoom euh, toujours dañuy seetaan émission bi dañuy woo ay téléphone dégg di sant di béggee dégg nga te xam naa ne tey Ibrahima Dramé moom nag dégg nga mooy Baye Fallou Serigne Salif Mbacké dégg nga lu mu am Serigne Salif la yal na yàlla gën a guddal fanam mook waa daayira ba yépp noonu lañ siyaare Serigne Djibi Ba dégg nga ci Italie dégg nga ak mboolem waa Italie gépp dégg nga mu am di ko siyaare ki nga xam ne mooy Babou Diémé dégg nga ci Espagne ak mboolem waa Espagne waaye noonu lañu siyaare tamit dégg nga Saliou Babou ca Japon dégg nga moom tamit ak waa daayira ba yëpp dégg nga noonu la ñu siyaare dégg nga Selum Jaxate dégg nga mu am ci Côte d'Ivoire dégg nga ñoom tamit ak waa daayira yëpp dégg nga maam ñoo leen di siyaare bu baax a baax dégg nga noonu leen siyaare ak mboolem mi nga xam ne dégg maam ñoo nekk ci réew mi ak ñi euh, ñu féete Maleek ñu féete fépp nga xam ne saa sune ne dégg maam euh, émission bi dañ koy bége dégg nga mm, dañuy ñaan nag yàlla nañu yàlla defal ba teem teem bi dégg mu am agsi ak jàmm ak salaam ba ñu koy mën a def direct ndax am na ñoo xam ni bu ñu sañoon dégg nga bu ñu def yi dégg ma ñu woote ñuy wax ak ñoom dégg nga su ko defee dégg nga mu gën a yaatu ñu gën a yaatal sax dégg nga temps bi itamit waaye loolu lépp incha allah dana ñëw ndax euh, dañoo wax ne sëñ Fallou Mbacke dafa ne dégg nga yuréet pëng rek xam nga moo tax tepp tepp moo baax ndànk ndànk rek su ko defee rek ñoo xam ne dégg maam ñoo ngi eh, delluwaat dégg maam di leen fàttaliwaat sunu doomu jaay ji nga xam ne moo wàcc liggéey dégg maam muy bëggim jaxate yàlla na yàlla xare ko àjjana bi saa Seydou so dégg nga soxnaam olala oh fii la doon liggéey dégg maam euh, titi ñu koy wax dégg ma nga xam ne daanaka wàllu dégg maam jigéen ñi ci coiffure ak yooyu la daan def fii dégg nga ñoo ngi leen koy jaale ak soxna Fatou mi nga xam ne soxnaam si nekk ca Madina Fall waaye di ko jaale dégg maam ki nga xam ne mooy Abdoulaye Jaxate ak soxna miin miina Adja miina Jaxate Adja miina Fall dégg nga ci gàdd gi dégg ma ak mboolem. Saalum Faal ak mboolem waa gàdd gi yëpp dégg maam wax nañ ne incha allahu euh, tey ci àllarba ji ci euh, tisbaar suñu julee tisbaar bu pare lañ koy denc yàlla na ko yàlla xare àjjana bi saay si Ousso moom nag pharmacie dégg nga Lat Joor la doon liggéeyee dégg nga xam naa ni bari war nañ koo xam su ko defee rek dégg nga ji ah, xanaa dégg maam da tàggoo tàggoo bu dul tàggoo di nga waaye suñu stagiaires yi tamit ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla dégg ma am guddal seen fan wéral leen munu ma tur yëpp dégg jàpp ma ko waaye jàpp naa binta dégg ma ak ami ba ñoom ñëpp dégg kon boole leen ñoom ñëpp yàlla leen yàlla defal li mu defal dégg ma seen i morom fi nekk am na seen morom yoo xam ne fii lañ nekk dégg ma fii jaaroon comme yéen ba tey ji dégg ma am fi nekk ñoom lu fi dox ñoo koy doxal dégg kon yàlla na yàlla defal jàmm su ko defee dégg ma am ñu sant bu baax ñëpp rek su ko defee ñu ñu jox la alaaji nga tàggoo tàggoo bu dul tàggoo suñu paree dégg maam ñu seet dégg maam ki nga xam ne mooy jàll mi nga xam ne moom amul xam naa ne kàddoom mooy sa kàddu rek dégg maam sa kàddu mooy kàddoom waaw kon bisimilah. Eh, jërëjëf ay mm. ah, gi dañ la ci jiital. waaw ah, di lay ñaanal bu baax suñu borom yàggale suñu kanam. Mm-hmm. Ah, ndax gis nañu sa taxawaay. ci mboolem jànkati xasida yi. waaye mboolem ñi waxtaan. li ma naan bi moom ñi fi jaar ci jànkat. bari nañu. wallaay Ah, te kenn wax dëgg yàlla ci sa émission bii la jaar ba àdduna xam ko. Oh, ah, tey jii lépp lu mu bëgg ci xasida yi suñu borom di ko ci defal. Ah, loolu nag noonu sant na ma koy waxoon ci suñu bis ba noonu laa koy waxee rek. <laughs> waaw yow moom noonu lay ñaanal suñu borom guddal sa fan. waaye suñu borom wéral la sant bu baax a baax ci taxawaay bi. waaye jàpp gi itam. Mhm. waaye noo ngi sant it mbooleem nga xamante bi ñu ngi suivre émission bi. Mhm. waaye sunu wayjur woon bàyyi ci kër ga. waaw soxna Fatou mbay ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam. ak sëriñ Pam Mboup sëriñ Ismaïla Mboup Mm. ñoom ñoo ñu jàppale. dëgg la ñoo ñu taxawu tey ba li a am. waaw euh, kon nag ñoo leen di ñaanal suñu borom guddal seenu fan. ñi jaar bi <laughs> yokku leen ñoo sant soppe yëpp nag. Mm. Mm. wóllare ak xarit yi. fu ci waay nekk rek ñoo ngi sant di la ñaanal baax. taw fi nga xam ne dégg nga soxna si boo ko bàyyi doo reer de waaw ah soxna Xadi waaw noo koy sant bu baax soxna Xadi Njaay <laughs> ah, ak mboolem soxna yi jëkkër ga soxna Ndey Mbay soxna Ndey Amin ah bàyyi Ousseynou soxna yi ci lañ bokk maa ngi jégalu sax ñoom ñooñu dañuy ay jàmbar daayira bi ñu yor foofu muy daayira soppe Sëñ Fàllu bi waaw soxna Xadi mooy jëwriñ ji waaye mboolem soxna yi ni Daaru Salaam moo leen jiite ànd a ñoom ci liggéey bi loolu lépp lu ñu woote ci liggéeyub sëriñ bi. waaw ñu laxasaayu ànd ci te sëñ Tuubaa tax. que kon nag ñoo ngi leen di sant. Ah, ñoo ngi leen di ñaanal suñu borom yokk seen pas-pas. Mm-hmm. ba yéen a jëm am ngir ànd koog ñun ci liggéey sëriñ bi itam suñu borom defal leen ci lu kawe seen jot. dëgg la barke Xaadim Rasuul bi ma def ci sëñ Muntaxaa. waaw ak bi ma def ci sëñ Fàllu. ñoom ñoo ko produire est-ce que <laughs> seen addiya waaw ni ma dañoo bëgg nga woy sëñ Fallou est-ce que dañoo bëgg sëñ Fallou ma woy sëñ Fallou mhm. mu jàll jóge koy kilib <laughs> ma loolu loolu yombul ci jàngko taxawal projet mooy jël waaw dugg ci nit ñi lu ne mu daj ko waaye ñun nag saa bu ñu jógee ñoom ñoo am jox sëñ Tuubaa rek tax dëgg la ñoo ngi leen di ñaanal suñu borom foofu euh, foofu mooy Daaru Salaam te salam salam buñ ko tuddé rek xel yépp day dem ci Cheikh Anta gawan borom ijal salaamatante ya salam yewuli lieewali iyaalif salam salaam kookooy borom deureum ak ngeureum ak kërëm borom jannat la jannat borom dar salam ak gawan ma cheikh faal na fa cipp daan bismillah jam ak gawan nan gawan ku gawan kon dar salam no rek la wara mel dégg mam kon su ko defé seigne Cheikh Mbacke mu seigne mustafa Imam seigne <coughs> Abdou Khafour Mbacke mu jara no ngi leen ci siyaare ñom ñep dégg maam seigne Cheikh Mbacke jambala lol dégg mam te yéen waa Daaru Salaam xam ngeen ci dara dégg nga wax dëgg yàlla moo toog toogaay wuy juram dégg nga taxaw taxawaay bu rafet noonu la ñu siyaare dégg ki nga xam ne kii Mbay Kan doomu Aliou Kan dëkk ca Badna Fall dégg nga ak ay rakam ñoom ñëpp dégg mam ñoom Badakan dégg maam euh, euh, ak ñi nekk Italie ñëpp bàyyiwuñu kenn waaye noonu la ñuy siyaare dégg maam euh, sëñ Muntaxa mi nga xam ne dégg maam dañ koo fekk dégg maam di wëllëree sëñ Moussa Mbacke imaam Poroxaan ndar ba ma demee ci jàng yi dañ maa invité woon ay jàng alxames ak ajjuma dégg nga euh, monsieur Alaaji monsieur Baar Mbaye sama seexu màkk la dégg maam moo amoon jàng waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou la dégg nga ñu baax dégg nga keroog Chérif Mahfou ay dara mi nga xam ne sagu Thiès dégg nga tamit ñëwoon na fa dégg nga nga xam ne kenn sérif yi ku xewle mu taxaw la dégg nga am ñoom Cheikh na Cheikh Saad bu ñoom ñëpp dégg nga tabaarkalla kon noo ngi leen di siyaare ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant ñoo leen di ñaanal yàlla na yàlla guddal seen fan bu baax a baax waaye noo ngi siyaare bu baax dégg nga am waa Kër Seyib Ndooy dégg nga ak euh, waa mboolem ak li ko wër ak ñëpp rek dégg nga xam ne euh, rawatina prestige gi nga xam ne wax dëgg yàlla dégg ñi fi nekk di ay jàmbaar prestige gii dégg nga am fi nekk ay jàmbaar lañu ku mel ni Khalifa Fall ku mel ni dégg maam euh, ki nga xam ne mooy Satina John ak ay Aïcha ñooñu dégg nga ba ci gardien bi sax dégg nga am euh, Alpha Diallo fi nekk sax dégg nga ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu rawat na waa restauration bi waaye moo duggee jëwriñ moom dégg maam ak mbay siis nga xam ne ñoo yore école bi ñoom tamit dañ leen di ñaanal yàlla gën a guddal seen fan wéral leen dégg nga bu baax a baax a baax a baax ndax école bi ñoo ngi koy gérer bu baax a baax garderie d'enfant bi tamit ñoo ngi koy bu baax kon di nga usine ndox bi noonu ak yeneen ak yeneen kon kenn ku si nekk fi nga féete daal yaa ngi fa féete di fa liggéey dee maam paam nag ñëpp nañ ko ñaanal eh, kii di bàyyam Seydou Doumbia yàlla guddal fanam ak soxna Fanta Diop mi ndeyam yàlla dégg nga ak soxnaa mi dégg maam ñoom ñëpp soxna Kumba soxna Faama soxna Busra dégg nga nga xam ne Pape sunu doom la sunu lépp la dégg nga ñoo bokk benn sëriñ man maay jëwriñam ay doomam maa koy tudd dégg nga kon xam nga jox na ma cër bu mat kon dégg man bi ñun ñii ñoo ko jëkk ubbi dégg nga sama kër lañ daan ñëw boobu benn caméra lañ yor Pape wax na ko ci télé bi dañu ñëw sama kër ma jàll yére yi dégg ah def émission boo paree ma defaat beneen su ma paree ma defaat beneen ñu dugal ko noonu lañ demee ba tey ji yàlla def dégg ni mu demee dégg nga waaye Pape gor la géer la garmi na moom moom nu yóbbu itamit dégg maam ba nu si àddi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon dañ koy ñaanal noonu la amee yéene defal ko ñëpp ba sañoon kenn ku ci nekk kuy liggéey fii billahi bu weer dee dégg ma da dem ca dégg nga banque ba retirer sa xaalis ku nekk na la wutal kër jox la oto dégg nga waaye nag loolu yëpp yàlla mën na ko indi yàlla na ñëw jàmm ak salaam kon ñu ko jàmm rek ñaana ko njaboot gi ñaanal ko ñëpp ñaanal ko stagiaires yeeg ñëpp rek yàlla leen yàlla defal jàmm su ko defee rek xam naa ne da koy tëjee rek baatu bi laa ilaha illallah xam naa ne yaa xam mooy maam Cheikh Rafal ndax waxtu yi jot na su ko ko loolu. la ilaha illa la ifay la la ifay la la ifay abdallah ifay khadir mat borom faal faal ila laay faal laay faal bunu doon faal xare looy faal faal ñaga dinu góor faal du ñi béy faal faal ñaga laa ilaaha إلا لا إله لا يقول الله وهو أحمد بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماد محمد يقول عبد الله وهو